ci ma Madiambal gis nañ ni moom nee na Sonko bu ko porté plainte moom itam daf koy porte plainte ci li nga xamante ne tey moom la gis. mu doon ay plainte sànq tamit. ñu ngi koy junj je crois dafa ne day porter plainte avocat yi. waaye parce que. avocat bi yi ñoo ko porte plainte. parce que avocat yi je crois je crois loolu laa dégg. waaye ñoom maître Bamba si c'est. et qu'on ah, sort pour d'avocat Ousmane Sonko parce que man je le suis pas franchement. nee na li mu xam ci dossier Adji Sarr bu ko waxee ci oto bi lañ ma lañ ma wax ne ne wax na ko mhm. xaw ma nee na day porter maître Bamba Cissé plainte parce que dafa ne euh, da koy porter plainte sans consulter Sonko waaw nee na day dem xaw ma lan la wax ne xaw ma ci baro yi ci xaw ma lan mhm. porte porter ko ko plainte te nee na nag dossier Adji Sarr moom nguur gi du ko yëkkati ndax bu ko yëkkatee lu ko neex la si du la am ndax lam ci xam bëri def ci xam dara donc dafa fekke lépp. nee ay otoom la ko génne woon ah, loolu dara. mais le mensonge lépp nga xam nañu mensonge la c'est créé de toutes pièces c'est fabriqué de toutes pièces loolu ñëpp xam nañ ko léegi moo waxu Adji Sarr rek la la gëm foofu di parce que mosul déglu Ousmane Sonko ci cas donc lan la mën a xam boobu yow li la aj li mu ko wax loolu la xam xanaa yéen muusu leen li ko Adji Sarr wax loolu la xam ni moom xamul dara li parce que mosul jàkkaarloo Sonko ba sa ko wax ko ci dara. Mm-hmm. am na wala amul ah. te déjà ci jugement bi du ne nañu amul. ah léegi day fen loo juge yi bëgg a bës rek léegi ngeen bëgg ñun ñu teg loolu ci taal lu ñu teg ci taal ñun Adji Sarr daf ñu tax a jóg. parce que nee na ak euh, ñi ñi ci. vraiment un mégot de cigarette comme ça. am na sañ-sañ man ñun ñuy loolu vraiment on a tellement construit dans ce pays là. boo mm-hmm. oh, oh, ko tamit arrêté quoi. Mm-hmm. waxo ji sax ñun tal nañ ko. te dafa mel ni rek la mm-hmm. on a mis à faire. waxu ñàkk fayda yu baax yooyu kooku maa moo koy wax genre am yi rek ñooy wax loolu. genre am yi rek ñooy wax loolu. moom la veille la veille c'était c'était bi muy def kii bi le lendemain ça allait être journée journée sans presse. sans presse mënuloon wax ci loolu rek. en ah. tant que journaliste en tant que journaliste. te bokk ci boycott quotidien ci loolu rek te bokk ci boycott yëpp ñu gis n'importe quoi. Mhm. gis nañu tey conseil des ministres président sàkku na ci li nga xamante ni moo jëm. di ci wàllu na menacé na parce que fi muy naan. Mhm. biñ ko téye fii. dañu teel a bàyyi parce que ONU xaw ma mm-hmm. ñoo ne n'importe quoi ñun dañ laa faale que lii yëpp pour pour rek xam nga pour ñu bañ ko tëj balaa euh, les institutions internationales di naan fii amul démocratie dañuy tëj ay journaliste yow mm-hmm. kii du journaliste bi ñu ki ñu nar jàpp ñu tëj ko kooku du journaliste homme d'affaires la ñuy tëj mm-hmm. hmm? coowal suuf immobilier kooku dañuy tëj mhm. un milliardaire la ñuy tëj qui s'est fait de l'argent sur le dos des autres ou bien soit euh, je sais pas moi ci li ma dégg Cheikh Bara di wax quoi kooku la ñuy peut-être mais pas quand même euh. vraiment on n'a pas de temps à perdre franchement Adji Sarr yu yu dire quelle journée sans presse boobu moom wax na ci président tey ci conseil des ministres sàkku na ci euh, jëwriñ jor wàllum communication ñu mën a xool waxtaan dox ci diggante ñoom ak presse bi waaye itam surtout ñu veiller ci l'application code de de la presse waaye tam fexe ba entreprise de presse yi ñu xool nan la ñuy def ba ñu mën a liggéey ci jàmm. waaw waru garam la. Mm. parce que conseil des ministres la chaque merc chaque mercredi lay am. am na lu fi xew la veille. il faut ñu wax ci. Mhm. politiquement donc c'est c'est tout à fait normal mu ne ministre de la communication seetal sa gars yi. Mhm. parce que ministre de la communication ci conseil des ministres xam nga du tëb sujet boobu. te ministre bu wax mhm. da ngay wax. sa secteur. xam nga du du manqué ne dans la semaine ou bien hier yaay euh, journée xaw ma soit dix ans parce que kenn yëgu ko. te ñoom nee nañu seen beneen plan d'action mooy boycotter action gouvernement. et ça nous ça nous mm. lii yëpp ci fay leen impôt rek yàqeeti dem leen fay impôt fii ku leen di yox cinquante millions par mois pour jàppale leen ngeen di fay seen employé amatu fi ñun soxluwuñu ngeen di ñuy defal propagande. Mm-hmm. donc duñu leen amadoué. on n'a pas ce temps là da ngeen di liggéey jaarale ko yoon point ñu nekk ci jàmm. deful leen ko doole leen mës a nekk ci jàmm critique malsaine rek ngeen am donc ñu bàyyi leen ci seen critique malsaine ñun ñu nekk ci suñu dëgg rek mu ngi mel ni man au début bi may gën ci Sénégalais yi au début c'était difficile mm-hmm. nit ñi dinañ kii se prend pour kii kii dafa réew kii nangam kii kii di mu kii kii su man nee damay faj hépatite ñu ne waa Sénégal dafa mën faj hépatite parce que gëmuñ seen bopp mm-hmm. man rek maay faj colopathie kii dafa mën faj colopathie gis ko woon gis nga léegi tout le monde est d' accord tout le monde est bi ma nee fii damay jox Sonko 200 millions combien de gens ne kii dafa am 200 millions parce que xamuñu ma naka mu léegi mun naa fayal gouvernement bi seen salaire seen 200000 salariés salariés boobu ci ci ci mois bi mun naa leen ko fayal de yàlla bu ñu am problème boobu bu ñu amoon léegi léegi problème fay salaire maa ni fayal. loolu un Malien l'a fait au Congo vers Cotonou fayal na trois mois état congolais ay salaire am mm-hmm. loolu du dara te xamuñ ne xaalis du feeñ ci yaram yow boo ma nekkee milliardaire léegi suñu toogee nii kuy xam ne kii milliardaire la kii amul dara day feeñ ci yaram bi ah boo naanee som bi du regg nga mm-hmm. ma lekk sama poulet du regg naa léegi biir yi dañ naan kii pële moo ci ne kii sombe ci ne yaa ngi ni sax yaa ma gën a tooy man maa ngi ni wow koŋ damaa nor sax te la gën mel ni balon boo xam ne dama peer man damaa peer fii peer fii peer fii te man ah? ma bokk famille du ko ñuy ñuul ku ba ñuy jaar dee ah? uh-huh. est-ce que tamit coowal impôt boobu euh, comme ni ñu ko waxee sànq waxtaan bi nga xam ne président sàkku na ko parce que tamit loo xamante ni la njiitu réew mi Macky mi fi nekkoon bala mu doon dem dafa dajale woon yenn ci patron de presse yi wax ni baal na leen di nga xam ne moo di impôt bi ñu waxoon fay loolu tamit nekkaat beneen situation boo xam ne defu ko woon bien avant mu ngi ci réew mi mais bàyyi bay dem def ko loolu tamit est-ce que créé wul scandale bi li ma la doon wax sànq son manque d'élégance waay li yëpp tooñ la c'est ce qu'il voulait créer justement sauf fou Macky Sall il est tout sauf un fou lii la bëggoon créer mais il n'a pas réussi parce que saful sénégalais yi joboo ñu ñëw ñu nañ nekk fii di critiquer Sonko di critiquer gouvernement bi xam nga pour naan il est temps qu'il revient on va le ramener ña ña parce que moom coûte que va revenir Macky veut reprendre le feu des présidentielles loolu moom même même même ñi dee xam nañ ko du fi amaatee moom mi dem. kan bàyyi réew délégué Amadou Ba. li ma la wax lu leer la boo gisee jàppale ama Amadou Ba yëpp si loolu la parce que dafa bëgg ñëwaat. waaw Macky est-ce bu ñëwaatee dina amaat estime. Macky ne connaît que lui-même. Hmm. il est ingrat il est égoïste. bu nekkoon bu nekkuloon ingrats il était reconnaissant donc le contraire il n'allait pas enfermer Karim Wade Wade qu'il a tout donné hmm? il est égoïste il ne pense qu'à lui-même parce qu'il n'a pas supporté la candidature d'Amadou Ba Amadou Ba dafa am fu mu ko téye woon rek ci ay secret ñu mu téye woon Amadou Ba ci ay secret waaw waaw li mu ko xamal ak bëri li kan xamal li Macky ah, Sall xamal Amadou Ba xamal Macky dafa bari moo tax mu teg ko ci kanam y a même des yoo xamante ne sa ñaari signature ñoo ci dem ah bon ah léegi ci kaw loolu lu tax moom jàppalewu ko pour ñu gën a sàmm seen ay intérêt parce que boobu Amadou Ba toogoon moom du mën a toogaat tout est calculé Macky il est tout sauf être fou bu toogoon mën nañ ko def président assemblée de après démissionné mu yéeg il ne va jamais accepter ah pourquoi man par exemple su ma nekkoon tey président automatiquement damay créer benn loi au le président sera empêché le premier ministre va prendre le pouvoir wala le vis président ma créer vice président ma def ko Sonko ma génn ne je suis incapable que man mun naa lépp soo être président de la république man je sais pas je sais pas quand même la mentalité ni l'intelligence d'être un président de la République. dina dellu si waat ak li fi jot a xew ci escandale vraiment nag moo poussé à bout j'ai posé ma candidature mais man moom mënu ma nekk président man moom bopp bi déjà man man je pas c'est-à-dire man awma problème man du xalaat man bopp bi feesatul damaa tux cigarette ba sama neurones yi yàqu. Mhm. damay gaaw a fàtte te l'oubli c'est le début de la folie donc xam man moom dans deux ans je vais être fou. Mhm. kenn du ko jox réew. ça je le connais man man mënuma gérer état sinon pap pap pap pap kon Charles sax dootul daw ci tali bi. Hmm. le désordre là je vais man bu ma defoon sax ministre transport nga gis lu rafet ministre transport rek pour trois jours man li ñu bëgg a régler rek nañ ñëw jox ma ko pour trois jours bu ma kenn fay ma régler leen ko vite fait après kenn du ne Sonko moo defar la bu ëllëg euh, la jomay nañ ne rek con bi Ablaye Diallo man moom cat mënul ci man dara. man ñeme naa. mais mais naka nga gisee ñi xalaat ne euh, waxtaan dafa dox ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ndax looloo waral ñu bàyyi ko moog. Bassirou Diomaye Faye Macky Sall si a cherché à causer avec euh, Sonko c'est pas c'est pour son bien. comment ak li fi jot a xew yëpp prière booy baal ma booy dañu jaxase booy nii booy naa booy naa. loolu la Macky doon wax di ko ñaan loolu pour son intérêt. xam nga bi Q BQR bi mu ñëwee. Hmm. BRQ bi mu ñëwee c'est-à-dire deux jours avant les élections BRQ bi ñëw na bulletin de renseignement quotidien bi. Hmm. wan na wan na Macky Sall c'est Sonko qui va prendre pouvoir monsieur Diomaye qui va prendre le pouvoir. ah le di le samedi BRQ bi mu ñëwee Farba Ngom ak euh, Mamour Saleh. nee nañ ko lii léegi jóg ci gaaw sinon gars yi ñooy yëpp pouvoir mais Macky a bien répondu hmm. nee na il ne va jamais xawma lan euh, xawma sama damay fàttali ne la man damaa commencé dof <laughs> je ne vais jamais hypothéquer la volonté du peuple Farba Ngom foofu la taa otam delluwaat Fuuta pexe amuloon c'est-à-dire ñoom xam nañu ne Sonko moo yor réew mi moom la moom la ni ñuy bëgg bu gañewuloon réew mi ce serait ingouvernable ça tout le monde le sait tout le monde le sait ou bien tout le monde prison xam nga temps amoon na temps boo xam ne ndeysaan bu ñu doon sangu si weteel boo booy solu dangay xool ban boxeur ngay sol hmm. parce que da xalaat ne mën nañ la jàpp jour boobu arrêté la sumbi la xam nga hmm. waaw nga xool vraiment da ngay parce que à tout moment on peut t'arrêter àggoon ah, nañ ci cas boobu ah. déggoon nañ man je me rappelle quand on m'a fait quand on m'a signalé on va attaquer ma maison. <laughs> ma leen bismillah maa ngi leen di xaar. nii nii nii y a des imbéciles qui fan noonu délégué par quelqu'un ah un. ah par émission en direct je le sais depuis 18 heures. loolu moom yéeme na di. wax naa leen ko sànq bi ma duggee. waaw. je mais man kaccoor la <laughs> man bandi la bandi bu fi ne maay sa bàyyi nañ ma xaar. Hmm. maa ngi ñëw léegi génn. dafa am benn mbokk buy laajte ni est-ce que jotul euh, sànq ñu ngi ci doon wax muy dossier Adji Sarr ñu tegaat ko ne serait-ce pour ñu ñàkk seen bakkan ci fen yooyu nga xamante ni ñoom jàpp nañ ni tax na. ay sénégalais yoo xam ne a des priorités ma chère. mais ñi ñàkk seen bakkan. c'est pas des priorités sax mais on a des priorités wax dëgg yàlla nag. Mm. yéen tamit. waaw ñoom ñoo koy indoon léegi léegi toog nañu indi waxu Adji Sarr quand même ça c'est pas beau. état du mm-hmm. c'est que ñooñu seen xalaat la ñuy wax xamuñu état xamuñu lu ne ci biir. Mm-hmm. xamuñu y a ya y a des y a des préalables xamuñu y a des y a plus urgents. Adji Sarr yu timide yu yu beneen affaire la. beneen affaire la waay. c'est pas des machines loolu cas muy wax loolu dafa leer sax xanaa kay <laughs> dañoo yàkkam rek jël Adji Sarr tëj ko. tëj ko ku ne noppalu <laughs> sànq on parlait du gouvernement. yow ñi nekkoon ak sax. ñoom ñëpp démentir nañu Adji Sarr nee ay fen la woon rek ay montage. ñi doon ànd ak moom. Ah, gisatuñ leen wax nañu. waaw gisatuñ leen ah, quand mhm. yaa ngi wax ci ñi ngi wax sànq ci. dialogue ma jàmbalee le dernier à connaître le dossier. te nee na lim ci xam kenn xamu ko ci réew day waxlu lu neex rek day wax lu ko neex rek. wala day fi xam la nit ñi xamul. wala day napp ma ne la encore ku muy napp ma jàmm dafa mun